ak Pastef mm. kon euh, moom day teel a voté ñu teel a wane élément bi ñëpp gis D'habitude, on le faisait un peu plus tard, vers midi. Mais aujourd'hui, surtout pour lancer un appel aux citoyens euh, Parce que le constat, c'est que d'habitude, le, le de participation est beaucoup plus faible euh, pour les élections législatives que pour la présidentielle. Et ces élections sont tout aussi importantes que, que le scrutin du Et c'est pourquoi donc ont opté pour venir très tôt voter et à lancer un appel aux citoyens à sortir voter massivement. bien sûr, parce que nous serions les seuls perdants si le vote ne se déroulait pas dans le calme. Dans tous les cas, on a toujours appelé et souhaité un vote dans le calme. La démocratie s'exprime dans la paix et dans la stabilité. Et je pense que quand on est en démocratie, il n'y a pas de place pour la violence. Euh, chacun vient exposer son programme pendant, avant et pendant la campagne. Et le jour du scrutin, les, citoyens choisissent librement. C'est ça la démocratie. Et dans ce schéma, il n'y a pas de place pour la violence. waaw di jaajëfal euh, ñi nga xamante ne ñoom euh, ñooy équipe bi ko ci élection yi recueillir li nga xamante ne mooy votam ak AVM mm-hmm. mm-hmm. euh, muy Aram Ndaw Ah, muy Kalidou Bey muy euh, Nicole Diédhiou ah, ñi nga doon wax sànq ci ah, li nga xamante ne mooy teel jóg voté. Mm. foog naa ne ñàkk lu am solo Aminata. waaw mi ngi koy euh, wax ki nga xam ne nag moom mooy tête de liste euh, parti Pastef mi ngi naan d'habitude taux de participation bi ci élection législative yi lay gën a faible looloo tax moom bi mu yëkkatee ay kàddu dafa gën a ñaax askan wi ngir ñu jóg. dem euh, voté ji gën a teel a euh, voté ji loolu day tax mbir mi gën a yomb ndax plus muy guddee léeg-léeg sax dañuy dem ba dañuy obligé gën a yokk heure bi nga xam ne dañ koy tëj bureau de vote yi ngir moytalu ko loolu yëpp nag teel a jóg dem voté ji da ciy am solo. waaw Mamadou yow euh, à temps réel. Mhm. ah yow teel nga ko gis vote bi. Mhm. macha allah. Hmm? waaw dafa doon li nga maa daanaka. premier ministre tamit dafa am benn présence bu am solo si jumtukaay yees yi moom daanaka sax votam bi dañ ko def en direct si plateforme yi mu doon moom ak ñeneen ñi nga xamante ne ay candidat lañ mais lu mu ci mën a seetlu moom su nekkul tête de bi nga xamante ne moo njëkk voté yeneen tête de liste yi nga xamante ne ñu ngi seen plateforme daanaka kenn voté gu si donc mooy tête de bi nga xamante ne moo njëkk voté donc je pense que après nga xamante ne ñoom la ñuy xaar instant bi mooy votu premier ministre bi su suñu live tweet ñu ngi gis ni que premier ministre bi moom votam euh, président de la république bien sûr euh, votam fi nga xamante ne moo njaga ñaaw gars yi ñu ngi koy xaar mhm. euh, gis nañ fa nag forte affluence comme sànq Omar ñi ngi nu ngi ko waxee forte mhm. affluence des forces de l'ordre mais Euh, daanaka président foofu dëkkam la. gis nañ mm. nit ñu bëri xamante ne nañ ñu ngi koy xaar pour saafonteeg moom donc c' est un moment bi nga xamante ne. peut-être que c' est dans un contexte électoral mais c' un moment aussi euh, ba nga xamante waa dëkk bi dañ koy xaar donc euh, si live tweet bi nga xamante am na suñu compte Twitter ak suñu chaîne WhatsApp mën nañ suivre en temps réel. Mm-hmm. les brèves informations yi nga xamante mu ngi wàcc ndànk-ndànk ak compte goutte mm-hmm. mais vrai et certifié. si élection législative yi. Mm-hmm. Mamadou Diagne am na lu mu wax léegi lu am solo baax na ñu fàttali ko ndax yaa ngi wax ni am na électeur euh, yu bari yoo xam ni xëy na yëguñu ni euh, dañu soppi seenu lieu de vote ñi nga xam ne dañ daan voté ji euh, Iba Mar Diop. ñu ngi ko yóbbu nag CM Martin lu tax King foofe la ñu war a voté baax na ñu jàllalaat information waaw euh, Martin Luther King fan la nekk fii. Euh, soriwul je pense que mi ngi ci euh, côté 22 bi soriwul Medina bi. exactement c'est Martin Luther King mu ngi juste derrière côté Colobane bi. juste derrière Centenaire waaw ba tey ci Medina. juste en face côté en face juste après ANSD. waaw macha allah kon lu weesu li nga xamante ne mooy teel a jóg voté Mamadou. lu weesu information bu am solo boobu nga joxe. Mm-hmm. Ah, ci ah, lii di Iba Mar ñu yóbbu ko Saint Martin Luther King. Mm-hmm. amul dara leneen lu feeñ ah, ci internet. ana waa diaspora bi nga xamante ne ñu ngi wëy euh, di voter avec engouement su ñu gisee ñi nga xamante ne ñoo nekk ci zone euh, dans les dans les pays. Euh, Euh, asiatique ñoom daanaka ñoom seen vote tàmbali na euh, ñëpp ñi nga xamante ne tamit ñu ngi si euh, France beeg Italie Espagne ñoom tamit seen engouement ak seen engagement tamit ah, ñu ngi koy fësal mais nag foofu le vote se déroule globalement bien contrairement ak tension yi nga xamante ne c'était palpable par rapport à la dernière présidentielle mais vote yi nga xamante ne am na si diaspora bi gis nañu ça se dans le calme peut-être que ne rang bi mooy xaw a gudd rek mais ça se passe globalement Euh, waaw mu mel ne am na ku nekk ci ligne bi muy euh, bassiru kan nekk ci Matam département de maatam nag euh, ñoom électeurs yi ñu ngi toll ci cent soixante dix mille sept cent quarante quatre Bassirou Kane ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. yow ban centre nga nekk foofee ca maatam ndax lépp yemb na vote bi mi ngi demee ni mu waree est-ce que amul ay rëq-rëq yoo xam ne mën nga ñu ko dégtal. waaw fii ci maatam Matam euh, déggaguñ benn rëq-rëq mais liñ mën a wax rek ñu ngi fii ci école 2. Hmm. école 2 nag particularité bi mooy euh, biñ fi ñëwee ba léegi pratiquement gisuñu li nga xam ne moom mooy électeurs yi ñu ñëw par benn benn la ñuy ñëwee te d'habitude euh, daaw na am quand même tuuti affluence. école 1 nag foofu moom tane na parce que foofu amoon na tuuti am na daal nit ñi nga xam ne fekk nañ fa ñu rang di waaj a wote Euh, comme euh, li nga xam ne rek euh, ñoom foofu souvent mo école ak école deux moom moo ëpp li nga xam ne rek moom mooy affluence d'habitude mais ren li ñu remarqué mooy école deux moom bareegul ñi nga xam ne daal ñoom ñooy ñëw école de nak amoon un léger retard ndax commencé wuñu à huit heures am na ñoo xam ne commencé nañu huit heures et ñeneen ñi huit heures et demie mais daal euh, vote bi mi ngi déroulé euh, normalement euh, tout comme que également école trois foofu aussi remarqué nañ li nga xam ne rek moom mooy vote bi tàmbali na même si bon nit ñi bareeguñ sooy xool daal ñi nga xam ne ñoom ñooy mag ñi ñoo ëpp daal ñuy ñëw di di di voté si soo jëlee nag Matam comme ni ñu ko waxee particularité bi aussi moom mooy liñ doon ragal mu jëm ci wàllu inondation bi fi amoon ndax dex bi nga xam ne dafa yéegoon ragaloon nañ ni dina am bureau de vote yi ñu toxal mais finalement loolu yëpp mujj cee am ndax euh, bi nga xamee ni autorité euh, administrative yi dem nañ euh, tournée bi bi vote bi desee ay fan dem nañ def tournée ci dëkk yu bëri mais gis nañ ni daal ndox mi wàcc na ba nga xam ne daal amul benn bureau de vote wala lieu boo xam ne daal dañ koo toxal matériel bi dem na ci ñu kon wax nañ ne mun nañ jàpp ne vote bi démarré na fépp ci département bu maatam Basirou. waaw wax nga ni vote bi dafa euh, tàmbale avec du euh, retard lan moo tax